mbokki asalaamaaleykum yéen mbokki internet yéen ñu faral di seetaan seen site bu mag bi Allo Dakar TV tey nag ñu ngi fii ci Liberté 6 extension yi ñëw ci benn manifestation le directeur général Dakar Dem Dikk metre Moussa Diop tey ñu fekk fe monsieur Moussa ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. tey gis nañ ni tey si suba ba léegi ci tudd mi nga xam ne tey da tudd sa doom ministre Moussa yu ñëw na fi ak autorité yu bari ñëw nañ fi. ban relation nga am ak ñoom ak lan nga xam ni moom nga koy wax ci sa bis bi nga xam ni mooy sa ngént tey jii ñëpp dajaloo fi. waaw maa leen nuyu di leen di gërëm waxtaan bi ci préciser aw moon manifestation nag manifestation dafa rëy dama doon tudd ngéntewu ma dama doon tudd sama doom tey le ministre nga xam ne sa moom la fi président Macky Sall teg mooy le ministre Oumar Youm ministre des infrastructures

gis nañ fi kilifa diine yi mais Moussa mënuñu directeur mënuñoo wax te dugguñu tuuti ci li nga xam ne mooy Dakar Dem Dikk ndax avant nga fiy ñëw président Macky Sall di la ko jox gis nañ fi mu tolloon ak fi nga ko indi yéen jéego yooyu nga xam ne tey def nga ko ji jéego yooyu nag nan la mën nan la demee ci li nga xam ne moom la la président dégg. waaw loolu la ñuy wax rek bilan au président Macky Sall si transport nga xam ni bu waxee lan la fi président de la république def ñu ci lii ci lii ci lii ci transport aussi yàlla def na am na yokkute parce que moom yoonu yokkute la lancé woon si loolu la ñu nekk transport bi ñu ngi def liñ ci mën mais bon mënuñu wax ni lépp jeex na problème yi jeex na mais wàññeeku na ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla ngeen encouragé ñu rek ñu gën a continuer félicitation ñi ngi dégg ci euh, site internet yi di ko dégg ci télé bi. Mm-hmm. muy benn problème bu amoon fii ci Yoff ñuy wax ni euh, Dakar Dem Dikk euh, directeur bi dañ ko jox alerte parce que dafa euh, dafa am bis yu bari yoo xam ne nee na bu mu duggati foofu. ñu bëggoon xam loolu problème loolu nan la demee noonu. non kooku problème boo xam ne ça fait un an et quelque lii di wax yaa une semaine ça fait sax xamuñu yaa un an et quelque rek malentendu entendu la woon entre ñi nga xam ne mooy ñi fa nekk. ak ñoo xam ne tamit dañuy def mission service public mooy transporteur mooy Dakar Dem Dikk man chaque fois samay agent yi ñu ngi dimbale nit ñi di désenclaver les zones bu ñu demee nag ba seen sécurité que seen plus assuré c' est normal moo wax leen ñu fi génn loolu rek la woon mais comme que ñoom dellusiwaat nañu ginnaaw ba xam ne léegi. dootuñu def li fa xewoon eh, te bëgguma jaar ci li ci xewoon bon yàlla baax na comme ko comprendre nañu rek yàlla baax man tamit fi nekk di dimbali ñi di loolu la ma président Macky Sall sant fépp foo xam mën nañ fa bi si pour ñi ñi di dem ak dikk ci jàmm dama koy def ci la bu amul c'est normal dama sama sécurité sama agent yi pour des problèmes de sécurité rek loolu dégg nañu alors Dakar Dem Dikk régional dégg nañ ko ci Sénégal fépp dégg nañ ko ci Afrique projet la Dakar Dakar am pour le moment bon ñun ci projet la ñu dëkk nag di ko rendre réel mooy bañ a dëkk rek ci projet boobu may ñëw également di gërëm le président Macky ma jox depuis juróomi at léegi nga teg ngi euh, ñu ngi def lu ñu mën yóbbu nañ fi boobu aéroport bi ñu ko ubbee ñu naan ñii dañu tardé avion bi dafa sori mais Dakar dem dafa créé ligne yoo xam ne uniquement pour waa ñii di voyage mooy AIBD dem bi ñu jógee foofu également la Sénégal dem dikk mu ngi daw Sénégal yëpp parce que euh, du Dakar rek moom moom transport bi même ce que Dakar dem dikk lañ ko tuddee woon mais laaj nañu désenclavé aussi zone yi nga xam ne mérité ko te ay Sénégalais lañu comme ñëpp yow tamit ñu koy doxalee région Sénégal yëpp Kédougou yëpp ñu ngi am Sénégal dem dem waxtu di dellu si waxtu accident yi bëri na kaaraange yi war nañ ko jël te parce que sa Dakar dem dikk mu ngi def lu wàllam ci loolu léegi ñu ngi war a jëm tamit ci Afrique dem dikk parce que c'est président de la République bëgg na mu ubbi ay lignes yoo xam day jóge fii dem Guinée ñaari Guinée dem euh, Maroc dem euh, Mauritanie dem Mali dem Bamako bii mu encore euh, Côte d'Ivoire yooyu yëpp ñu ngi ci voilà fa lancé la ligne d'ailleurs commencé ko par Gambie dans quelques jours bis yi nag ñu a difficile am nañ ko mooy bis yi donc on commence juste à travailler xam nga nag international ni lay voyager Sénégal bi biir Sénégal c'est pas ça Fi da ngay romb frontière xale bu dem te amul këyit il faut que ñu xoolee euh, produits yi ñi transporter aussi douane baa ngi fi sécurité des personnes et des biens auxquels gendarmerie mooy ci yoon donc képp kuy voyage di leen war a former ci yenn affaire yoo xam ne wane leen vraiment du jógee Dakar dem. Louga mais jógee Dakar dem Conakry la benn deux pays la deux lois la deux législation voilà. directeur gis nañu bu yàggul dañ lay def coordinateur APR Macky 2012 léegi coow li nag gis nañu mu bari fan yëpp nit ñi di ay troisième mandat Macky waxoon na lii nekk ci constitution bi yan kàddu nga am loo xam ne yaa ngi sànni ci loolu troisième mandat bi accord la féliciter aussi ci coordinateur bi nga xam ne def nañ euh, la. waaw si je me trompe pas. samay compagnon politique jël nañu décider naan dañuy renouveler euh, mandat wu ki nga xam ne moo leen di jiite. coalition boobu moom mooy pré coalition Macky 2012 nga xam ne moo tax bi président teg fu mu nekk tey ñu ànd ak moom démb budul tey je pense demee ba dénk ma ko parce que moom mooy président coalition bi léegi mais dafa soxla coordinateur parce que dafa am yeneen liggéey yi muy def nekk président benn bokk yaakaar nekk président de la république. Le président sibari bari mun a jël benn tegal fa nit dan bu ñu ma ci ci élection ñu def élection ma def rek président. Hmm. parce que suñu première mission ñu en 2012. deuxième mission mooy ñu en 2019 def ko troisième mission bi mission générale la accompagner ci gestion bi Sénégal loolu te loolu la ñu nekk donc coowu Sénégal moom xam nga fii coow dafa manqué nit ñi dañuy wax ne ñun dañoo am discipline de parti discipline de coalition parce que tamit euh, coalition Macky 2012 APR la ak ñun les alliés dañoo toog am na communication bi bu ñu koy defee chaque fois Sénégal ñu ni peut-être le gouvernement communication baaxul ñu ni bon nañu toog. suñu euh, biir seet naka lañ koy defaraat a jubbante ñu jubbante ko wax lu ñu war a wax ak lu ñu warul wax ak lu jotul wax jot jot la wax de parce que euh, wax bu jotee moom bu euh, dama noppi sikk la bu wax jotee noppi sikk la mais président nee na wax jotagul nañu liggéey man gis nga yooyu troisième mandat sans intérêt l'opposition puusal ma toog kañ ngay dem mais ñun ñi pour le moment ci liggéey lañ nekk bu wax jotee affaire mandat jotee daan ci wax mais pour le moment ci liggéey lañ nekk kenn duñ divertir